Salut les amis de l'eSport TV de votre Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information inbox sénégalais fait pour le Montenegro 14 régions du Sénégal roxroxari gorgoxari ñi ngi leen di jaajeufal ñi nekk également ci et ci kër février tudd feebar na suñu borom fëgg seen bopp nga wér ak jàmm ci aussi erreur judiciaire Guinéen ñeen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen ñi dëddu àdduna suñu borom xam ne daa jëne fi daw si gars yi te yéexee ñu en avance ensemble la magie de Baba Show et Sport TV l'actualité en continu gars yi te supporter Barça yi ñoo def lu yéeme <laughs> ci TikTok bi ak aussi relation Cristiano Ronaldo ak doomam bi ngeen seetaan vidéo boo xam ne gars yi day wan rek euh, le l'entraîneur euh, du FC Barcelone mom fini dal saison bu exceptionnel le bëgg def ak Barça gis nga ni mu indé Thiago Alcantara mais également il compte sur ses cadres même bu fekkee ne début de saison bi joueur yu bari dañoo nekk à l'infirmerie ki na ngeen gis nag gars moy Marcus Rashford defati na benen Rashford dañ ko dal di dindil permis la ñu nangu ci mom euh, ba ñett ba juroom benn wër ndax dafa doon dawal excès de vitesse ñu japp ko mu ne mom da jàppoon né dafa ñuko euh, ñu ko doon topp ah ñu doon topp la doo la ko foogoon ah mais mo ngoog loolu tax na dal fini ni nangu war nañ permet ah. mais aussi Lamine Yamal la tête de gondole du FC Barcelone gis ngeen sur les traces de Lionel Messi tax mu 19 Barça marketing mais aussi histoire lañ nekk di Lamine Yamal même histoire bo aussi Nico Williams nga actuellement euh, Barça priorité pour recruter ko Dani Olmo aussi priorité équipe FC Barcelone Nico Williams aussi qui rappelle un certain Neymar ndax Neymar donc euh, euh, le joueur euh, brésilien mi nga jarna Barça def exceptionnel jaar également euh, dañ koy euh, mais aussi ah, donc Nico Williams nga jaral na supporter Barça yi ñu TikTok bi lañu dem <laughs> TikTok bi le supporter Barça yi dem ngir dal def lan pour na def pour ñu jënd Nico Williams. supporter Barça yi pour jënd li nga donc Nico Williams jaral na lu ah, pour pour aussi ah. <laughs> fi mu ne nii ñoom dañoo bëgg aussi fayu championnat bi ñu perte doon daaw ah. gis nañu Real am na équipe bu mag a mag a mag ñoom dañu bëgg renforcer wi ak meilleurs joueurs yi nga xam ne am nañ ko moo tax daal Nico Williams <laughs> gars yi def ci liñ ci def kii nag di Cristiano Ronaldo moom ak jabaram ñoo nekkoon gars yi ci vacances lañ nekk ba léegi ah mais kii nag di euh, doomam bu jigéen bi nga xam ne Bella Esmeralda la ko tuddee ah doom ji moo def vidéo boo xam ne moom la ak papam ak yaayam ah Georgina ak Cristiano Ronaldo mu leen ci euh, wax mbëggeelam ah donc un moment boo xam ne dañ ko capté wane aussi Cristiano Ronaldo au-delà du football parfois dañu lay fàttali muy moom demee si ay nit kese lañ je vous laisse savourer gars yi den wax aussi ngeen woy di like dem ci TikTok bi nga xam nag eSport TV 1 Instagram bi eSport Inter ngeen abonné ga ak ci eSport ñaari chaîne YouTube yi su si yéen ya que yo. Te amo, papá. ¡Eh! ¡Yes! ¿Y la otra? Te amo. Papá. Ah. ¿Y a quién más amas? Te amo. Ma. Ma. Te amo. Mamá. Mamá. Dile amor. Dile solo. Dime a ver. Dime, amore. ¿Y te amo, mamá? Eh, amo, mamá. ¡Bravo! <laughs> Mm. <laughs>